أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم الحمد لله الذي رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن برزق البرازخ تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى حفيد جده ووارثه سره الأبر شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا عبد العباس أحمد بن محمد السالم التجاني سحان الله من فيده وذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المستمعون الكرام نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre fa tabaarakallaahu di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di am mbégte bu yaatoo yaatu lool di leen ziyaar di am contentement fa tabaarakallaahu di ñaanit yàlla bu baax a baax weer wu tedd wii ñu nekk muy chahru ramadan alladi unzila fi l quran huddan linnaas wal bayinat min al huda wal furxaan muy weer woo xamante ne weer wu barkeel la weer wu bëri yiw weer wu bëri naataange weer wu bëri ñéngal fa tabaarakallaahu moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam ne weeru koor nga xamante ne gannaaw ba yàlla waxee ayaaman maadudaat ay fan la yu ñu lim fa tabaarakallaahu ñu xaaj ko ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi yonent bi alayhi salaam nee na ku ko woor awaluhu rahma ñaareel bi mooy wa awsatuhu maxfira ñetteel bi mooy wa axiruhu itqun min naar mu ne fukki fan yu njëkk yi ku ko woor yàlla labal la diigal la fan ci yërmandeem bu yaatu gi nga xamante ni yërmande yàlla kenn mënu ko takk ndax yaatu gi mu yaatu moo tax ndeysaan am na benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci biir jàkka ji di waxtaan ak saxaaba yi mu am benn góor gu màgget lool ànd ak sëtam dugg ci jàkka ji di du di julli ñaari ràkk di def li ñuy wax tahiyatul masjid ba mu kàbbaree di julli rek fa tabaarakallaahu yonent bi ne saxaaba yi boo leen bëggee gis nitu safara xol leen waajooju laa ilaha illallah saxaaba yi jaaxle tiit loolu xam ni yonent bi lépp lu mu wax dëgg la ndax yàlla moo ko wax ñoom ñu jaaxle ndax mag mu am 90 ans jëm kaw dugg ci biir jàkk yonent bi ay saa saa ni ku bëgg a gis nitu safara xoolal waajooy kon tiitaange dina yeewu foofu saxaaba yi jaaxle waaye nag ba yonent bi waxee loolu saxaaba yi yëpp toogaat continuer di déglu yonent bi góor gi pare àndaat ak sëtam di ñibbi waaye ci biir yoon wi ba ñuy dox di dem sët bi jékki-jékki ne maam ji ah asamaan de maa ngi xool ba ñu dalee di ñëw ba léegi ba ba ñuy dellu si xaw ma fu mu commencé ak xaw ma fu mu yem góor gi ne tek ne sët bi ni ko ni ngay gisee asamaan xamoo fu mu commencé ak fu mu yemee naa lay xamal ni yërmande yàlla moo ko ëpp góor gi wax googu mu wax mu mel ni euh, lisaanul xaalu yàlla dafa yëngu yàlla ne kii xam na man may kan yàlla ne góor gi li mu wax lépp loo xamante ne toppoon naa ko ba bëgg ko fa tabaarakallahu euh, def ci moom safaan bis bi dëgg naa ci lépp man yàlla soppi naa lépp jéggal ko ngir wax wu rëy wii mu wax góor gi dellu siwaat même heure même waxtu fekkaat yonent bi di waxtaan ak saxaaba yi ba góor gi ñëwee dugaat ci biir jumaa ji def lu ñuy wax tax tahiyatul masjid mooy julli nuy julli ñaari ràkk nuy jàkka ji ba mu ko defee ba toog yonent bi alayhi salaatu salaam ne waat saxaaba yi ku bëgg a gis nitu aljana xoolaatal góor gi saxaaba yépp soulagé wu seen xel dal fa tabaarakallaahu ñu mën a reetaan kon ne ànd ak yonent bi waaye ba góor gi génnaatee di ñibbi ci yoon bi dafa am benn saxaaba bu ko dab pour dem xool góor gi ci diggante bi lan la def ba tax yàlla bëgg ko jéggalaat ba jéggalaat ko ay bàkkaaram yii mu ñëw dab góor gi waxtaan ak moom ni ko waa góor gi dama bëgg a xam ban jaamu yàlla nga def bu rëy bu tax yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb ba nga dugg see dafa ni yow nitu safara nga góor gi commencé di jooy mu ni ko xaaral ma dalal sa xel waaye ba nga ñëwaatee tey dafa ne ku bëgg a gis nitu aljana na la xool ma bëgg xool diggante démb ak tey ban jaamu yàlla nga fi def bu tax yonent bi ni kii nitu aljana la loolu rek moo tax ma dab la di la laaj góor gi xalaat ni ko ah man comme li ma daan def rek sama vie quotidienne rek dem sama kër def li may def ñibbisiwaat sama kër waa léegi mu ni ko wax ma rek xalaatal rek góor gi xalaat xalaat xalaat mu ni ko ah xanaa démb ba lenn ba may ñibbi jóge ci jumaa ji damay génn di dem sama sët bi ni ma maam xoolal asamaan si maa ngi xool xaw ma fu mu commencé waaye xaw ma fu mu yem loolu moom ma ko waxee ma ne ko nag li ngay gis yi yépp yërmande yàlla moo ëpp loolu kon nag saxaaba bi xam ni wax woowu moo yëngal suñu borom ba tax yàlla jéggal ko moo tax mbokk yi loolu loo ciy déggee mooy yërmande yàlla yaatu na yaatu boo xamante ni bu kenn tiit bu kenn ragal xam ni yàlla buntam tëjalu ko kenn moo tax ndeysaan góor gi ne wa rahmatullahi kullal xalqi qat wasihat min fajirin wa mutiin baar yi mooy yërmande yàlla xat wasihat dëgg-dëgg yaatu na fa tabaarakallahu ba jaam yépp xaj nañ ci waaye yàlla bu koy def min faajirin day tàmbalee ci ki nga xamante ni ñëpp dañu yaakaar ni kii du nit ku baax nee na yërmande yàlla foofu lay tàmbale ndax mbaaxaayu yàlla doog a ñëw ci awal mu mooy ki nga xamante ni day topp yàlla di jaamu yàlla du def lu bon fa tabarakallah pour wan ni yàlla rek mooy yàlla te yàlla wa anna al fadla bi yadillahi yuti man yasha yaxtasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim yàllaay def lu ko neex ci jaami moo tax jaam yi nañ leen bàyyi ak yàlla yàlla moo leen di atte moo tax ku jë jël tegoon ni yow yaa jàng yaa xam ba tax lu la neex nga def ci jaam yi erreur la yàlla moo xam jaam yi te moo xam nu muy def ak ñoom moo tax yàlla ni fukki fan yu njëkk yi képp ku ko woor ma diggal la ci sama yërmande yi ci digg bi mu ni képp koo ko képp koo xam wa awsatu maxfira mu ni fukki fan yi ci digg bi képp koo xamante ni woor nga ko man yàlla ma jéggal la bàkkaar bu tolloon ni zabadul baxri ba tolloog vague duusu géej yi daw ci géej gi la muy bari bari bari bari bari bari ci ay bàkkaar yàlla nee na képp ku ko fekkee mu may la kàttan ba nga woor ko waaye boo koy woor nag nga def ko imaanan waxti saaban boo ko defee imaanan ci ngëm waxti saaban ba pare sellal sa koor nee na bu boobaa yàlla nee na ma diigal la macha allah ci sama njéggal ñett fukki fan yi mujj yi nag mu ni képp ku ko woor wa aqiru itqun min an naar man yàlla ma fegal sa yaram ba doo dugg safara kon mbokk yi yàlla loolu la ñu indil muy barke bu yaatu boobu moo tax da ngay toog sax léeg-léeg nga dem ci koñ yi jamono jii may wax ak yow léeg-léeg da romb ay jeunes yoo xamante ni yàlla def dara jëtu leen feebaru ñu dara dalu leen ñu toog ci mbedd di lekk te yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku xamoon yiw yu nekk ci weeru koor kon fa tabaarakallahu wala it ku xamoon ci danger bu nekk ci benn jour nga dog ko te tey ko te amoo benn ngànt nee na boo doon wóor sa ngiiru dund doo dabu bis boobu kon mbokk yi weeru koor foor na moo tax weeru koor yàlla def ko boole ci li muy wax ci alqawaid yi boo demee ci xawaidul islam xamsa mooy ponku diine lislaam fa tabaarakallaahu juróomi fa tabaarakallaahu weeru koor ca la bokk gannaaw boo seedee ni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy benn bi ci teg mu ni iqaami salaat ñetteel bi mu ni ita i zakat ñetteel bi mu doogu indi sawmi ramadan mujjee nag xijjul bayti baax na xajjul bayti baax na man istataa ilayhi sabila juróom yooyu la nag ci juróomi nag daf ci am ñoo xamante ni moom par force da koy def pour mën a dugg ci diine lislaam kon ku seedewul ni amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu gi di jëriñ muy suñu borom subhaanahu wa taala te it seede ni yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla moo ko yebal kooku ku ko deful duggagoo ci diine lislaam ñaareel bi mooy iqaami salaati taxawal julli julli moom wàcciwul kenn minal lahdi ilal lahdi boo demee sax ba feebar ba tëdd ci lalu hôpital mënoo jóg mënoo toog mënoo wéeru lislaam nee na la sa julli bu boobaa tëdd bi ngay tëdd di xool asamaan rabbana ma xalaxta haata baatilan subhanaka fa qina adaba naar mu ni kooku loolu mooy doon julleem kon julli du wàcc kenn ñett yi ci des nag moom boo ko mënee def ko baax na boo ko mënul nag lislaam daf la koy tegg mooy ita i zakat ki amul wërsëg amul alal bu doy kooku mënul génnee azaka li ci topp mooy sawmi ramadan yàlla dafa def la part des choses mooy ku gëm yàlla gëm yonent bi yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum ba pare jël benn baat ne laallakum tattaquuna loolu xam naa dinañ ci ñëw ci suñu yeneen waxtaan yi ñëw incha allahu rabbi lan mooy baatu tattaquun pour nit ñi gën ko mën a ràññale gën ci mën a bàyyi xel kon yooyu lu ci ama am solo la beneen bi ci des mooy dem màkka dem màkka moom gannaaw ba yàlla waxee ci wàllu koor dafa ne koor nag farataal naa ko ci jaamu yàlla yi comme ni ma ko farataale woon ci ñi leen fi jiitu woon waaye nag dama ko def muy ayaaman maadudaat mu nekk ay fan yu ñu lim waaye nag am na ci ñoo xamante ni dama leen di préserver ci koor mooy ki nga xamante ni aw aw aw aw maridan ki feebar aw ala safarin wala kiy tukki tukki farata lu ëpp di kilomètres bu boobaa kooku koor ki daf koy teggeeku waaye bu koor gi jeexee day fay ki feebar nag feebar boo xamante ni feebar bu dul wér la te nee nañ la boo wooree mën na sa bakkan mën na ci dem bu boobaa lislaam danaan la kii bu mu woor bu boobaa koor gi daf lay teg waaye nag koor gi du la teggeeku noonu de gaay loolu bu amee dafa am loo xamante ni lu ñuy tuddee fidiya moom ngay génnee mooy boo bàyyee ba dog jot nga yëkkati lu mat ndogu nga jox ko benn nit bu boobaa yow loolu mooy doon sa alamaan léegi nag ki may laaj ni ma nag waaw bu fekkee ni man awma dara ci man yoruma lu ma génnee bu boobaa nan laay def lislaam nee na ku yorul dara dara waru la bu boobaa nag koor gi daf lay wàcc incha allah taala te fiddiya boobu nga waroon génnee it dootoo ko mënati génnee moo tax loolu lu ci ama am solo la mbokk yi ñu jàppee ko noonu ci ñett ñett yooyu ñu gën ci góor góorlu taxaw ci weer la woo xamante ni weer la bu am barke si la yàlla wàccee alquran kon nag nañ ci góorgóorlu bàyyi ko xel bu ñu ko defee noonu nag yàlla dimbali ñu incha allahu ci suñu yeneen waxtaan dinañu gën a ñëwaat gën a yaatal ci wàllu weeru koor wi yi nga xamante ni macha allah ay jikko la ñu jéem a sàmm wante ak jikko yooyu ba bu ñu génnee ci weeru koor bi ku ñu gis rek xam ni kii ca la mu nekkoon ak la ko yàlla tere woon am na ci taxawaay boo xamante ni di nga ci am ngërëmal yàlla te loolu moo li am solo kon mbokk yi tey fii lañuy ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje suba incha allahu ci yeneen waxtaan fa tabarakallahu di leen bëgge nag di ziyaara ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm in uridu ila al islaha mastataxtum wa ma tawfihiya ila billahi ali tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu